ahlan jotaayu koor ahlan émission la bu ngeen di ànd ak fadilatul ustaaz ak docteur Mouhammad Ahmad ngeen mën ko am ci DR Malo TV bis bu nekk ci weeru koor gi bu 19h jotee mën ngeen ko xaarit ci whatsapp wala facebook ci DR Malo officiel ngir ay leeral jokku leen ci nimero yi yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37. bismillahi rahmaani rahiim yi ñuy ci Dermelo TV noo ngi dellusiwaat ànd ak kon ci sunu jataayu juróom tey nag jataay bi mu ngi jëm ci beneen xaaj ci mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo mu jullit yi nga xam ne rek dañ leen seddale séddale menn mbooloo mu ci nekk ak sot atte bi nga xam ne moom la sharia jox tey nag waxtaan wi dafay jëm ci ñi nga xam ne dañoo tële woor te it mu doon ab xaaj ci seen biir am na koo xam ne dafa tële woor ndax dafa màggata màggata màggat ba àgg ci li ñuy wax alhadayaan nga xam ne daanaka naag na ba xàmmeetul guddi ak bëccëg xàmmeetul ndeyjooram ak càmmoñam kooku koor waru ko koor waru ko te li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ sax lele waru ko maanaam dara waru ko ndax dafay delluwaat rek mel na gone meloon ba mu nekkagul mukallaf ñoo bokk ab atte kooku rufia anhu al qalam moo ki fi nekkatul ñooyam moo ki ki ki àndatul la comme xelam nekk ab dof wala mu nekk xale boo xam ne majeuragul atte bu mel noonu moom la yor moo tax kooku koor waru ko lele waru ko ndax su ko war war warteefu koor su ko xasee wàcc kon la ñuy tudde badalu koor muy la war a wóotu koor loola itam daf koy wàcc su ko defee nag euh, keneen ka ca sës mooy koo xam ne euh, moom dëgg la lott na ci koor waaye lottiin la woo xam ne wu continue la dafa feebar feebar boo xam ne xam nañ ne lii du wér te it docteur yi jox nañ ko euh, xalaati ne ko bul woor maanaam tere nañ ko mu woor moo xam feebar boobee daa nekk diabète wala daa nekk tension wala dafa nekk sax cancer wala yaasu billah ak lu ca mën a doon ginnaaw feebar bi nekkul feebar bu ñuy yaakaar ne day wér te it docteur koy faj nee nañ ko feebar bi koor daf koy yokk baaxul ci yow su boobaa koor ga daf koy wàcc waaye nag faw am na lu mu fay wutal la mu fay wutal mooy li ñuy wax lele mooy bis bu mu waroon a woor bu nekk mu génneel ko ah, ab mudd joxe ko muy loo xam ne dana mat lu gàtt gàtt dana mat dana mën a dundal nit daal ci bis ci gàttal jamono yi nekk dañ koy nattale ci la tolloo ak loola waaye na seet loo xam ne mën naa dundal ab nit ci bis mu joxe ko bis boobee bu dee fanweeri fan yi mu joxe ko ba muy mat fanweer moo xam nag dafa woo kenn mu ñëw mu jox ko fanweer yooyu yépp wala dafa woo fanweeri nit ñoom ñëpp ñi ñëw kenn ku nekk mu jox la sa lay firnde nag muy dalil ci mboolem yooyu ñi wax ci ki nga xam ne dafa dem ba tële ba mënatula woor ba xameetul guddi ak bëccëg nga xam ne julli sax wàcc na ko ak ki nga xam ne dafa lott ci ak anam ba mënatula woor waaye mën naa leele yooyu yëpp la cay firnde mooy waxi sunu borom tabaraka wa taala fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kem kàttan ak waxi sunu borom tabaraka wa taala laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha borom bi tabaraka wa taala du teg bakkan lenn loo xam ne lu mënut la kon mbokki jullit yi kooku moom euh, mooy ki nga xam ne ku tële la nekk benn groupe boo xam ne moom itam groupe bu am ci jullit yi la sharia jox ko ab atteem ki tële mutlaqan ba nga xam ne mënatul dara <coughs> xàmmeetul guddi ak bëccëg kooku moom koor wàcc na ko ak lépp lu cay tegu ki nga xam ne nag tëlewut ba àgg ci mutlaq waaye dafa am euh, wet goo xam ne gu ko gaar la am wet goo xam ne gum dese la <coughs> feebaram moo dul wér rek waaye tàggaliwu ko ak sagoom kooka moom mooy lele bis bu nekk mu joxe loo xam ne mën naa dundal doomu aadama nattale ko ca dëkk ba mu nekk wala réew ma mu nekk la fa mën a dundal doomu aadama mu joxe lu toll noonu yàlla borom bi tabaraka wa taala nangu suñuy koor nangu seeni koor te képp koo xam ne ak wéradi mi ngi ci saw yaram borom bi tabaraka wa baaxe la wéradi googee mu faj ko dindi ko te bindal tuyaabay koor ci képp koo xam ne tële na ko ba mënatu ca dara ki ko tële itam ba wuutal fa ak lele it borom bi tabaraka wa taala nangul ko te ñu xam ne que tële bay lele it kat kooka taxul dara maa ngi ci tuyaaba jëm waroon a am ndax képp koo xam ne doon na def dara ba mu yàgg mënatu ko te ngànt waral ko borom bi da koy bindal tuyaaba ji toll ni jëm daan am kon day mel ne suñ jataayu tey foofu lay yem ki ci xarala gi mi ngi junj loolu ñu yëkkati jataay bi kon ba beneen jataay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لم يتوب في شهره من ذنبه فهو الذي قد باء بالحرمان